ak tijaani lan moy relation yoonu laayeen ak khadiri lan moy relation yoonu laayeen ak ñasseni ba tay bu appel bi ñewé señ am ñun ñepp duggal no ibnu national yi te kër gu ñu dugg da ngay fogni ni lañu gëna mëne fofu nak amul laaja dama lay baye grand rek nga wax ma relation bi dox digënté kër yi ak kër njabootu diiné ji fi nek ndeysaan olof nee su kër bu ñewé ci monsieur Ba ma nekk ngi sangu ji señ Ba nee na suukar bu ñëwee ci moom nekk damay sangu ji bu dellusiwaatee eggul woon. relation boobu euh, bàyyi laay sax sori na ab laay rek laa ciy jël sori na bu ma neexee ni man nii waaye nag dogalu suñu borom la. yàlla moo wax ni innamal mu'minuuna ixwatun loolu relation ba. يالا موني واختصموا بقبل الله جميعا محمد لولاي ريلاسيون با يونت بي عليه الصلاه والسلام لي مودي واخ دافاني المؤمن يحب المؤمن ولا يبخل احدا منهم من جول داي بوك داي بغ مبوكم جوليت امولو درا بانتي كان لوتا من بوغين بغند فان اهل الجنه يتحبون من سوغين بغند الله يني اند دوغندو اجنه ام دي صلى الله عليه وسلم nee na tant que tuubu leen bu ngeen tuubee si ngeen dem àjjana waaye bu ngeen tuubee na ngeen bëggante ngeen di soog a mën dem àjjana relation boobu nag la am li yàlla wax nu jëfandikoo yëfu yàlla mooy wax tasimu moo di sëñ Ablaye sa baay bu baax ma nit ñi doon koy jàng bu ñëpp defoon li sëñ Ablaye xuloo dafay am. Mhm. am de. nu mu def bu ñëpp defoon saa laay wax bu ñëpp defoon di saa baay xuloo dafay am këram ngay dem fekk fa Cheikh Mbacke sëru kër ngay dem fekk fa sëñ laa Mbacke. sunu kër ngay dem fekk fa ji bu saaxo Cheikh Tidiane si al Maktoum sëñ Mansour Ba xam imam Assane Cissé Abdou Khalid Jeylaani sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou sëñ Modou Bassir ñëpp a fa hmm, kër xamul la sama daan na wax naan borom kër ci kër fu neex lay dugg ñu ne ko ah, mu ne sama maam mooy moo doon ñëpp la ñuy xaritool mais raan raan dafa am ko fekk sama kër ne ma sëriñ bi bayit bii ngay way waaw maam Alaaji Malick fu mu nekkoon waaye gars yi nan bàyyi weddi. ndeysaan. nanu bàyyi weddi gëmal li nga gëm. ay ku def nii dafa araam ak da wax rek. nee nañ ko fitasu dafa araam gars yi nanu noppi soo gëmulee lislaam maandul sëriñ seeg tarixa yi nanu bàyyi xuloo bàyyi sànninte xeer bi nanu ko bàyyi gëmal li nga gëm da bàyyi nit ñi seen gëm mais bul forcé kenn. julli ñi li ñu def teguñu ko hmm. xool sëriñu jàmbur di ko wax loola neex jël sa sëriñ làq teguñu ko fen nañu xaritoo bokk ndey bokk bàyyi loola lu yàlla sant ku nga ci def baax la ku nga ci def nga lu neex yow mënoo fexe fexe fexe ba Seydi Hadji Malick du moom. waaw waaw. billaahi barke bàyyi la. kër Kama Ndogo dama doon sëñ bi mais maam El Hadji Malick bi Rasulilaay nekkee ca ca ca biir Gorat ba. ak bi yonent bi nekk ci biiru Amina mais Maodo lu mu def ba xam ne ma ne ko du nit jeex la. <laughs> maam El Hadji Malick. ku tedd ki nee na bi rasulilaay sama soppi bi yonent bi nekk ci biiru aminatu nee na moom moo xam la xew booba bàyyam gaañul xaddaa bi ab waay maa la ko wax ku sopp Sëriñ Babacar

مغتهر بالفدا مويل خردا بأبوان عبد الله خير لا إله لا أعذر لك سيد الأجمال ابن واصل يا ويا أنا محمد مدنا مختار فرخ سيد الأجي مالبنا وصليا يا إله هو جزيا أبدا أنا محمدنا مختار بالخير كتابي أبواي مولو ku sa xol baax te ngay jullit waxal li may wax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 yu rëy ah. yaa am nga léegi may yaaram bi yaa jaraway yow seexoote yaa mawla salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi kullihim Babacar si ku baax ku ne bëgg nga ko am déet xam naa Aziz Ndiaye may seetaan waaye ku baax ku ne bëgg nga Serigne Babacar si tala arala na samsul huda ku si fat du jaa يا كاملا اي انوار واسرار ينقتل طلع لنا واو سمزل واو يا الغدايا يا كاملا أنوار والأسرار ينقتل وله الكمال وله الجمال وله القروة وليقتدى نوره ليس غير منا من انوار من نوره ايوه غير من انوار من نوره غير منا من انوار من نوره غير ما هلنا من أنوار أنوار من نوره غير ما هلنا من أنوار من نوره غير ما هلنا من أنوار أيوة خلن أمد ما زايا بلدان زايا أيوة bal daar zaaya ay waay amad masaya ay waay bal daar zaaya aja wax leen la ilaha illallah la ilaha illallah man de waruna kenn du sëñ Babacar waalo waalo la ana soppey sëñ Babacar daga ana so fay Sëriñ Babacar ku mu jaaral loxo e daga waalo waalo la ay jëleen ñu ñaani paas ah. ndax gaal ga teeri na ah. paasu gaal eh, eh, eh, jalla man jalla bay di sa waay ah. ma déggee kay cummi kaay ah. ma di ragal akatiito akatiit yow saaban ya lay xeex saaban ya lay xeex dundal nga diina ji daanati nga xataab ya bu waay maam si dégg nga lii yee farata. moo tax weddi baaxul. Ah,